ay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara soxna jaara moo di ba mi desi di feeñaat teeram wa de foofu ndaw jaara bu jigéen mi ne fi tey duñu beew waaye nga te waaye te forox te foog jalu ma fi des yàllal yàlla yàlla jox barke soxna jaara bu defan suq ak cuune duñu wan ñuulu dolli dal xëjul cim nen soxna jaara julli te jàppul masula julli te wildul loola kay sangam tuubal daal di wër buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ji yekk jigéenam soxna te mbokkam saalan maaram la laalal sëñ gaawaan rekki bànnay jaamam jam sayla jam baatin bambal kami kaadam cog la jébbal saalan dem rootil dongay xëy toolam soxna jaara moo sellal dongay mu daarootal seen ba moo niital sawru faal Sawru Faal jaara yéen a jaayi Bamba yéen a moo pëg pay jëf moo waral maam Bamba Abdul la muy jëf yéene waral keroog buuram yéefar yi la muy jëf yéene waral keroog dooram moo tax ab war nay jëf te boole koog yéene loola mooy njëlma dee leen jëf te boole koog yéene bu ñu doo jëkk ak karaam soo kaay leenam kaw fee moo taxoon musul leenam bu guddee mu dem diiwaan baa aras di waxtaani jaara yoom nga ndam te yaa gore maam soxna ba sunu maam ji yor borom nga ñu li te fii ñun jafe na cib jaam ma fay dox di waxtaani soxna jaara ma fay dox di waxtaani ma sa jóg di seetaan ma sa wax ba ñeetaani moo taraxal saytaani ma sa dox caag raw sax day leen ta jig maasam ci la baa di waxtaanam lool moo la ban xaasam soxna jaara moo ban njiit mbambulaan mu naa wal wal dégg too bi kenn ku mar mbaa ku gàntu bañ a wal waaye wal mi dem na fu ne ngën ji ceeba day gëndale ña nangoog ña gàntu du tee fépp fépp lay dalale ku yebu teex ku yebu bañ bàq baa ngi kenn cëriwul ñi gëm dañu teex ndax ngën ji ceebu fawu mu wal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 soxna jaara mii war naa tax jigéen dafa xaadam moom ki nangu woon xaadam te si gël kalmaaram soxna jaara mii war tax jigéen nangu sëriñam boole cem du kat ak xel si réemu di yaaram soxna jaara mii war naa tax jigéen sanal góoram yekk say takkaay di ko jox si réemu di yaaram soxna jaara mii li mu am sax jigéen mënu koo jëf waaye nangu ak yéene daanu dellu pay kuy jëf keer ba mu maa moor ba fanaani caat moo di sakkati weñ yi war na kànkaar saate sulux yam defal maa moor moo waral tabax jiital ak basam bu ñuy tooyal kaa ba gaa nga tuuba tuuba sulux tey njàppam laa war am jàngaay leeg bu sëriñ yi xeeñoo foofu soxlaar wata muy daw ku nekk ngay teeral ruy ba mu daa jox maa moor moo waral kabe suukar koog ya moo di sun kaas yi ndax nguur daa moo puutar njalla mu daa jox maa moor moo waral mu rii sow koy sootu doo baabal soxna jaara moo jar dew fal bu ciyeen doo baabal ñeenu faab liitar boole suukar ak meew noonu soxna saa yora tiitar wal gamu daawal moo tax daar yëpp naa kunkan boole kunkan ak kàndang bu njëlee ñu naa biñ bañ waram gaa waral mboolem daar yi rujux rujuxi soxna jaara mbooloo mi sëriñ bi sëriñ président ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu nee Cheikh Mouhamadul Muntaxa moom Cheikh Mouhamadul Bachir di xaadim rasul nee xalif général ku murit nee mi ngi yëkkati kaddu nuyoo ak kaddu siyaare nee siyaar boo xam ne bii am na fu mu tàmbalee waaye amut fu yem nee di la jottali nuyoo boobu le ci ju ko jottali sa jëmm ju tedd ji man ak mboolem délégation bi ànd mboole moom ak mboolem délégation bi ànd ak moom. ne te délégation état bi yëpp. daanaka état bi kenn desul. ne ñoo ñëw tey di la nuyoo indil nuyoo ak siyaare. ne ñëw nag tey. ci dëkk bu sell bii dëkk bu tedd bii. muy poroxaan. ne ñi lay siyaare. barkeelu si ak barkeelu si liggéey bu rëy bi nga xam ne yéen a ngi koy defaral soxna si tëdd di fi tëdd ni ci liggéey bu rëy bi ngay defaral soxna jaaral mii fi tëdd muy soxna maam Mariama Jaaratulaahi Buso waaye ñëw naa nag ci tam fekkaat la fi tey waaye ñëw na nag ci tey fekkaat la fi tey mu toog fi toogaayu xaadim rasuul ne loolu nag ne day nekk tey lu am solo ne fekk na la Touba ñëw siyaare si la sa mag ju tedd ji jiitu Cheikh Sidil Makhtar Mbacké yal na yàlla yokk leeram ne ñëw naa tey nag sa dëkk fii ci Porokhane di Serigne Touba ngay Serigne Touba ne mu fekk si la fi ne ñëw di la feddali

ak sa naalu bopp nga xam ni yaa ko fas yéene yëkkati ci mission bi la yàlla dénk Sëriñ Tuubaa dénk la ko ne bu dina xamal ne naal yooyu nag ne fas yéene na en tant que président la république ne na mu ko doon defee ak sa mag yi jiitu ne fas yéene loo yëkkati te xam nañu loo yëkkati lu ne ne diine rek la yoonu sëñ Tuubaa la taalibe yi la kon askan wi la mais loo yëkkati lu ne fas yéene nañ laa gunge ci loolu kéem kattanu nguur gi ne dégg nañu sa kaddu nag ci yéene ji nga am ci Tuubaa ci bërëbu jàngukaay yi yoo xam ne yu mag lay doon lu am solo lay doon ndax xam nga ni njàng mi ñu jëggaani bitim réew day ànd ak léeg ay jafe-jafe ne léeg-léeg day bari lu ciy rax ne day faral di wax Sénégal fu lislaam def lépp junni at soxlaatul jëggaati leneen daara ju mag kon daara ju mag jooju ci Touba. ñëpp war nañ cee jàpp. mooy xam ngay taalibe. mooy xam ngay état. war nga dugal sa loxo. nga dugal sa loxo. ci yéene bi sëriñ bi am. ndax ñu mën ko sottal ci anam yu gën a rafet. loolu kat bu sottee. waxul tey. waaye lislaamu ëllëgu Sénégal. daañu ko gën a aar la ko mag nga doon aare démb ne kon daara ju mag jooju le des na rek nga wax ko ni ko la la ci bëgg ak na ko bëggee ne ñu ñu jublu ci ne fii ci Porokhane nag yàgg nga yéene jumaa ji yaa ko liggéey yaa njaboot gi kon ñun mënuñu lu dul. lu dul. ki si am yéene. ki si am ak barkeelu. ñëw ba joxe barkeelu gi. loolu daañu ko def. daañu sant ñii mu ànd mu jaboote leen ñu def ko. ndax da ngeen a yàgg sumb liggéey bi. te du ngeen xaar kenn ci liggéey. kon loolu daañ ci def sunu barkeelu. mu des dëkk bi. dëkk bi nee wax nañ ko ne kër yónni nga ko Cheikh Mamadou Bachir mu wan nu ak jafe-jafe yi fi am wàllu xur yi mooy tere dëkk bi yaatu ne kon war nañu poroxaan taxawal ko plan directeur urbanisme bu bees boo xam ni. pare sax laata ñu pare sax. am na ay dëkkuwaay. am na ay dëkkuwaay. ak ay programme yoo xam ni. ne Sow dana ci ñëwaat léegi. yépp ñu tàmbali ko. waaye ne am na programme bu mu ci gis dana ci waxtaan ak yow. bu nu paree. ngir indi ci. taxawaayu nguur gi. li maa ngi nee li des nag mi ngi lay feddali yaakaaram nee xam na sa yéene nee wane nga ko lu jiitu tey nee ba muy ñëw dina fekk njaareem ci fulk bi nee loolu yàgg na te saa yu ñu la gisee la ñu a gis mooy sa bànneex wane cofeel ak di ñaan ne kon tey bu la yàlla defee Serigne Touba ne kon sunu xel man naa dal waaye nuy buñ la diisee suñu soxla ne suñu soxla du lenn nag lu muy jëmale réew mi kanam ak naa li ñu sumb yàlla jàppale la ci ci barkeb sëriñ Touba ñu yëggale liggéey bépp ne leneen nekk soxlaam ne kon loolu yaakaar na ni. buñ la ko ñaan see fii lee am na ci rafet njort ci gàttal daal ñëw nañ siyaare si la lépp loo xam ne yëkkati nga ko ne bu ko yëgee daan ci taxaw taxawaay bu rafet ñu ngi lay sant di sant nag njabootu Serigne Touba gi fi nekk yépp ne di sant porte nga tànn ko tànn sa jëwriñ tànn kilifa yëpp ñu fas yéene ni ko bëggee rek ñu doxale ko noonu insaar bi daana ko doxale noonu ne tey nag ñëw na poroxaan siyaare si sàkku siit ñaan ne yóbbu nañ ko ci barab bi léegi ne nam ko daa defee noonu la ko defee rek ne soxna maam jaara moom ne kuy wax ku liggéeyal diine. ne jigéen ñëpp mën nañoo jël royukaay. ne tey daara ji fi ne. ñu dafay def école formation professionnelle. maanaam bu ñu leen jàngalee diine ba noppi. jàngalee nit lu ñu mën a liggéeyee. ne loolu itam taxaw na ci. insaara bi nee li ci des nag ne ginnaaw bu toogee ak yow ne dana ko mottaleeg yow ne mi ngi sant kilifa yi fi toog yëpp sëriñ maam Thierno Mbakke ak kilifa yi fi nekk yëpp ne buguta lim di juum waaye bu sëñ bi Cheikh Amadou Mountakha buñ la tuddee tudd nañ njaboot gi ndax murit liñ ko xamee mooy yar ak jëfe ndigal ne ni nga toogee nii yaakaar na ni dañ ñëwoon mu ñëw nuyu la siyaare la rek nuyu njaboot gi yëpp ne kàddu yooyu rek la bëggoon a yëkkati ne lu ci dëng nag mi ngi koy jéggulu waaye yéene bi nag moom moo ne ëpp moo ëpp li ne ci xol yi mën na wax na moo li ne ci xolam lépp wax na ko ne mbakke yàlla na ay gi yàgg lool yàlla may la wér te nga mottali lépp mbakke yàlla ko yàlla def ne jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul cheikh mouhamadul muntaqa mbakke ibnu cheikh mouhamadul bachir mi nga xam ne tey ci dogalub yàlla moom la sunu boroom tànn def ko muy jëmmi sëriñ Tuuba ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax sunu boroom dafa wax ci alquran ne allahu allahu alamu xaysu yajcalu risalatihi waxaat ne summa jacalnaakum summa jacalnaakum xalaa'ifa fi lardi min bacdihim linandura kayfa tacmaluun sëriñ xam na loolu. te sëriñ bi xam na loolu. kon ñoo ngi koy ñaanal. mu yàgg fi lool. te ànd ak wér. te li mu bëgg a liggéeyal sëriñ tuuba sunu boroom may ko kattan. akuk wér. ba lépp mu mottali ko. danaa ci dellusiwaat. muy yóbbante am nuyoo. ci ganam gi. di président de la république. Macky Sall. ñëw fi tey. ñëw siyaare si ko. ngir yaari anam. ngir yaari anam. ñëw fi siyaare si ko ngir jiite gi mu jiite réew mi. ñëw fi siyaare si ko ngir jiite waaye ñëw fi siyaare si ko ngir yeesal ak taalibeem. ndax sëriñ bi wax na ne. Sering na ci moom ak taalibeem. sëriñ bi wax na ne yeesal na ci moom ak taalibeem. def na li yëpp di def ci moom. def na itam li taalibe yëpp di def ci moom. kon mi ngi koy nuyu bu baax. di nuyu ñu mu àndal. te bu ñu tëddee Mouhamadou John premier ministre. mi nga xam ne ci njabootu sëriñ bi la bokk. tudd ci Aly Ndiaye. moom it ci njabootu sëriñ bi. yooyu yëpp di ay boole yu leen sunu borom boole. ak ñi ci des ñëpp. ak ñi ci des ñëpp. su ma xasee tudd ñooñu rek tudd naa ñëpp. sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu bu baax. di rafet nee itam dikk gi nga fi dikk. ndax nee na sa digg ak moom. lu yàgg la yàlla def na ak cofeel. sa digg sa digg ak moom. go cofeel goo xam ne ñëpp xam nañu ko. te ni ma ko waxee ci làmmiñam itam. fa su ma ko yéenee weesu. ndax kilifa kenn du ko yokkal ay waxam. ndax kilifa kenn du ko yokkal ay waxam. ndax tànn ba wax ko rek. ndax la mu tànn ba wax ko rek. loo yéene lu ko ëpp itam. loo yéene lu ko ëpp itam. loola ca ba wax ko ca la njëriñ nekk. mu wax ma ne ma. mu wax ma ne ma. ngi lay xamal ne la. mi ngi lay xamal ne la. li la suñu borom boole ak moom. li la suñu borom boole ak moom. ci jamono. ci jamono. xam na ko bu baax. xam na ko bu baax. nee na cofeel boole. nee na cofeel gi leen yàlla boole itam. xam xam na ko bu baax. mu wax ma ne ma. mu wax ma ne ma. yemul ci cofeel gi sax. yemul ci cofeel gi sax. waaye dafa am ñeewant waaye moom dafa am ak ñeewant ci yow. baat boobu la ko génnee. baat boobu noonu la ko génnee. nee itam mi ngi lay ñaanal bu baax. li nga xam ne sag bëgg. li nga xam ne sag bëgg la. sunu boroom dimbali la ci. barab bii nga ko fekk itam. te barab bii nga ko fekk itam. barabu sàkku ñaan la. barabu sàkku ñaan la. ndax Serigne Touba. ndax sëriñ Touba. moo waxoon ne ku fi ñëw. moo waxoon ne ku fi ñëw. boo fi nee jàng. boo fi nee ma fekk la fi. ma fekk la fi. mbaa nga fekk ma fi. mbaa nga kon noo ngi lay mi sant bu baax. nee na yéene ji nga am ci moom itam. nee na yéene ji nga am ci moom itam. te daa ko feeñal jëkk lii. te daa ko feeñal jëkk lii. xam na ko xam na ko. yéen ji nga xam ne yaa ngi koy jëf ci dëkk bi. yéen ji nga xam ne yaa ngi koy jëf ci dëkk bi itam. jox na ndigal ki yor liggéey bi. jox na ndigal ki yor liggéey bi. moo ko waxal boppam te moo ko waxal boppam. danañ ko génne. danañ ko génne. wane ko ba ñëpp gis ko. wane ko ba ñëpp gis ko. loolu itam. loolu itam. li mu ci jublu rek. mooy du sakk jëf. mooy moom du sakk jëf. lu ko waay defal dana ko xam. ko waay defal itam dana ko xam. kon mi ngi lay sant bu baax. di la gërëm ci loolu. di gërëm ci loolu. moom mii nag. moom mii nag. suñu borom dafa def. suñu boroom dafa def. bëggul sax ku seere ci moom. bëggul sax ku seere ci moom. ndax ni mu dëddoo àddina ndax ni mu dëddoo àddina moo tax. ndax dafa xam àddina. ndax dafa xam àddina. waaye nag da koo sànni. waaye itam da koo sànni. boo ko xamut. ba boo ko xamul. da ngay jàpp ne da koo ngay jàpp ne da koo xamul. te loolu. te loolu. mooy mi Serigne Touba meloon. mooy mi Serigne Touba meloon. Serigne Souhaïbou bu mas naa nettali ne. Serigne ne. Touba nee na. Serigne Touba nee na. addina dama koo jël. addina dama koo jël. teg ko ci sama pekkul baaraam. teg teg ko ci sama pekkul baaraam. xool ko ci biir ba ci biti. xool ko ci biir ba ci biti. ma xool ko dara amu ci njëriñ. ma xool ko dara amu ci njëriñ. ma sànni ko ma sànni ko. waaye noonu laa ko xamee. waaye noonu laa ko xamee. moom mii nag. moom mii nag. loolu la ko yàlla defal. noo loolu la ko yàlla defal. boo ko boo ko nee. yàlla nga gudd fan. gudd fan. du la tontu du la tontu. boo ko nee. boo ko nee. yàlla am ngërëmul Serigne yàlla nga am ngërëmul Serigne Touba. mu ne la amiin kon foofu la nekk. kon foofu la nekk. loolu Cheikh Abdoul Ahad. loolu Cheikh Abdoul Ahad. képp lañ gisoon mu daa képp lañu gisoon mu daa doxee noonu. moom itam noonu la ko yàlla melal. moom mii itam noonu la ko yàlla melal. muy jëm joo xam ne itam. muy jëmm joo xam ne itam. moom laa gis ci ku moom laa gis ci ku bëggul cërub àddina. ndax naga ni daaw. ndax naga daaw. fii ci cérémonie officielle bi. fii ci cérémonie bi. ña ko teewoon ñëpp teewoon ñëpp ñu ngi fi toog. muy ñaanal Cheikh Sidi Muxtaar. muy ñaanal Cheikh Sidi Muxtaar. di wax yéeneem ci moom. di wax yéeneem ci moom. ba wax ne. ba wax ne. bu ma ko mënoon. su ma ko mënoon. dindi sama fan. ma dindi samaw fan. jox ko jox ko. foofu la yéene mën a. foofii la yéene mën a yem. ma dund ci seen diggante ñoom mu mu dund ci seen diggante ñoom ñaar. ma dund ci seen diggante. ma ma dund. ci seen diggante ñoom ñaar. loo mën a seere. loo xam ne mën naa koo seere. ndax Cheikh Sidi Muxtaar. ndax Cheikh Sidi Muxtaar. bëggoon sëriñ bi ku bëggoon sëriñ bi la. te doyloo ko. ndax wax na ci moom yaari yëf. ndax wax na ci moom yaari yëf. dafa waxoon ne. dafa waxoon ne. képp ku yëkkati addiya. képp ku yëkkati addiya. war koo jox sëriñ Touba. war koo jox sëriñ Touba. bu ko joxee Cheikh Mouhamadul Mountakha. bu ko joxee Cheikh Mouhamadul Mountakha. tege na ci loxoy sëriñ Touba. tege na ci loxoy sëriñ Touba. dégg naa ci làmmiñam itam. dégg naa ci làmmiñam itam. mu wax ne bu sañoon. mu wax ne bu sañoon. moo koy taxawu moo koy taxawu. kon yàlla defal na ko. kon yàlla defal na ko ko. kon loolu yéene mënu koo weesu. kon loolu yéene mënu koo weesu. loolu nag ci jëfam la. loolu nag ci jëfam la. ndax moom danaa wax ne. ndax moom danaa wax ne. sama kilifa. sama kilifa. dama koy bàyyee sama bopp. dama koy bàyyee sama bopp. bàyyi ko boppam bàyyi ko ak boppam. noonu la defoon ak magam ja. noonu la defoon ak magam ja. Cheikh Mouhamadul Moustapha. Cheikh Mouhamadul Moustapha. ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir. ànd ak moom ca noona. ànd ak moom ca noona. topp ci ginnaawam. topp ci ginnaawam. amatul bëgg. amulu bëgg. amatul bañ. lu sëriñ bi bëgg rek. lu sëriñ bi bëgg rek. wala lu mu xool. loola la xool. wala lu mu samp rek. wala lu mu samp rek. mu suuxat ko mu suuxat loola. moo nii la dundee ak moom. ba àddina sépp seere ko. ba àddina ba mu làq ay ngërëmam. bi fi Cheikh Salihu Mbacke nekkee. bi fi Cheikh Salihu Mbacke nekkee. seen diggante. seen diggante. ñëpp xam nañu ko ñëpp xam nañu ko. ndax bi fi Cheikh Mouhamadul Mourtada bàyyi ko. ndax bi fi Cheikh Mouhamadul Mourtada bàyyi ko. Serigne Saliou dafa joxe ndigal li. Serigne dafa joxe ndigal li. lépp ne. lépp wax ne. lépp loo xam ne. lépp loo xam ne. Serigne Mourtada daana ko taxawee. Cheikh Mouhamadul Mourtada daana ko taxawee. tegaat na ko ci loxoom. tegaat na ko ci loxoom. kon loolu junj bu rëy la woon. kon ndax wuutu doomi Serigne Touba yombul. yombul. rawatina Serigne Touba rawatina Serigne Touba def ko. kon ci loolu. kon ci loolu. Euh, noonu la ànde woon ak ñoom. noonu la ànde woon ak ñoom. Euh, bi fi Serigne Saliou Mbacke bàyyi ko. bi fi Serigne Saliou Mbacke bàyyi ko. xel yëpp gëlëm. xel yëpp gëlëm. mu dellu ca la euh, Cheikh Mou Serigne Touba waxoon Cheikh Mouhamadou Bachir. mu dellu ca la Serigne Touba waxoon Cheikh Mouhamadou Bachir. li mu santoon ci lijjanti mbir yoon wi. li mu santoon Cheikh Mouhamadou Bachir ci lijjanti mbir yoon wi. Serigne. Bachir waxoon sëriñ Moustapha Bachir ne ko. te sëriñ Bachir waxoon sëriñ Moustapha Bachir ne ko. maa ngi yéen dama dañoo bokkut jamono. maa ngi yéen dañoo bokkut jamono. ndax yéen. ndax yéen ndax man. ndax man. doomi sëriñ Touba yi ñi ma ci mag bëriwul. ñi ma ci mag bëriwul. ñëpp maay seen kilifa. ñi ci des ñëpp maay seen kilifa. yéen nag seen jamono. yéen nag seen jamono. da ngeen di bëri ay kilifa. da ngeen di bëri ay kilifa. ndax ñi leen di mag day bëri. ndax ñi leen di mag dañuy bëri. su boobaa nag. digal naa leen. digal naa leen. na ngeen di fexe bay jëf. na ngeen di fexé bay jëf. lo xam ñepp lañ ci roy. lo xam ne ñëpp danañu danañ seen danañu seen roy. mu la nag. mu laxasaayu nag. ànd ak Cheikh Lamine ak Cheikh Mouhamadou Lamine bara mm, def ko serigne Touba. def ko muy serigne Touba. ñepp and ci ak mom ñepp and ci ak mom mu taxawu ko. mu taxawu ko. balaax ngërëmam. balaax ngërëmam. bi mu tabaxé jumaay darul minan. Bim tabaxé tabaxee jumaay minan. ba noppi. dafa jël juróom-ñaar fukki million ak juróom. dafa jël juróom fukki million ak juróom. ne mooy ati Cheikh Mouhamadul Bachir. ne ne mooy ati Cheikh Mouhamadul Bachir. def ko ak njotu. def ko ak boole ko ak jumaa ji jébbalaat balaat ko ko ak jumaa ji jébbalaat ko ko addiya. jarul dellusiwaat. jarul dellusiwaat. Cheikh Sidil Mokhtar. Cheikh Sidil bu mu mas woote. liggéey bu mu mas a woote. joxe na ci lu téeméeri joxe na ci lu ëpp téeméeri million. te bokkul ak addiye yi dem waxtu wu nekk. kon moom kon moom. li ko waroon ci kilifaam. li ko waroon ci ay kilifaam. lépp matal na ko lépp matal na ko. moo tax itam. moo tax itam. yoon wépp. yoon wépp. nañu. maase nañu. def wenn say. def wenn say. ngir fay ko bor boobu nga xam ne. ngir fay ko bor boobu yi nga xam ne. ñëpp la ko lebal. ñëpp la ko lebal. defal ko Serigne Touba ko Serigne Touba. muy loo xam ne nag muy loo xam ne nag. dafa tabbi ci pàggute fi Serigne bi. dafa tabbi ci pàggute fi sëriñ bi. ndax Serigne Touba. ndax Serigne Touba. dafa ñaan waccaal xulubana waccaal dafa ñaan wax ne waccaal xulubana ala tawadudi ala tawadudi ولا تخاصم ولا تخاصم ولا تدابر ولا تدابر ولا تباغض ولا تباغض ولا تنافر ولا تنافر حتى نصير حتى نصير مسلمين خاشعين مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين ومؤمنين مخلصين صالحين كن لولو كن لولو Serigne Touba da koo faggu. Serigne Touba da faggu. mu feeñ ci biirum njabootam. mu feeñ ci biirum njabootam. mooy wa yuusiruuna anfusihim. mooy wa yuusiruuna ala anfusihim. walaw kaana bihim kaana bihim xasaasa. danaa ci nettali benn benn eh, njàngale mu yéeme. ci ci diggante njabootu Serigne Touba gi. ci ci diggante njabootu dafa ñëw di siyaare ji Cheikh Mouhamadul Bachir. fekk muy deyaale boromam. fekk Cheikh Mouhamadul bashir di deyaale ak boromam. ñu wéet tëju. ñu wéet tëju. mu wéet tëju mu agsi ki ne ci buntu bi. mu agsi ki ne ci bunt bi. mu laaj ko ana sëriñ bi. mu laaj ko ne ko ana sëriñ bi. mu ne ko dafay wéet ak boromam. mu ne ko sëriñ bi dafay wéet ak boromam. mu nar koo fëgg. mu nar koo fëgg. Cheikh Mouhamadul Fadil ne ko. Cheikh ne ko. Eh, doomi Serigne Touba kenn du ko fëgg. Eh, Cheikh Mahamadul Fadil ne ko doomi Serigne Touba kenn du ko fëgg. daal di daal di dem. bi Cheikh Mahamadul Bachir génnee. bi Cheikh Mahamadul Bachir eh, kam fa tegoon xamal ko ne. kam fa tegoon xamal ko ne ko. Cheikh Mahamadul Fadil ñëwoon na fi. Cheikh ñëwoon na fi. mu ne ko loo ko wax. mu ne ko loo ko wax. ko dama tëju. mu ne ko dama ko wax ne ko da tëju. mu ne ko. moneko sama sama mu ne ko andi sama caabi ndax kuy teju doomi seigne touba ndax kuy teju doomi seigne touba do yor samay caabi dal di seen moom kon ñom loolu suñu borom defon ci seen ko te sëriñ bi dund ko ak kon ñoo ngi koy ñaaral mu yag lool te and ak wér ba li mu bëgg a liggéeyal sëriñ touba sunu borom may ko kattan ak wër ba lépp mu mottali ba lépp mu mottali ko. wax na ma ci biir waxam nag. wax na ma nag ci biir waxam. ne ma yéen ñaar seen diggante. ne ma yéen ñaar seen diggante. adduna ak àllaaxira. addina ak àllaaxira. lu ci ne dafa am lu ci suñu borom wax. lu ci ne dafa am lu ci suñu borom wax. muy maslaxa mi ci war. muy mi ci war. nee na suñu borom da koo dénk. nee na suñu borom da koo dénk. mbirum àllaaxira. mbirum àllaaxira. di ëllëg. ëllëg. مي عبدا اتيناه موي عبدا اتيناه رحمه من عندنا رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما يويتام مو دنكل والو ادنا يويتام مو دنكل والو ادنا انا مكنا له موي انا مكنا له في الارض في الارض واتيناه واتيناه من كل شيء سببا من كل شيء سببا dénk la mu dénk la wàllug addina gi. mu ne kon dajale gi suñu borom dajale. jamono mu ne yéen ñaar dajale gi leen suñu borom dajale. addina jamono. nee loolu dafa am lu suñu borom junj. nee na loolu dafa am lu ci suñu borom junj. noonu la ma ko waxee ci làmmiñam. noonu ko sëriñ bi waxee ci làmmiñam. man nag du ma guddal. man nag kon. ndax waxtu wi jot na. ndax waxtu wi jot na. te bëgguma cee dolliwaat. lim ci wax lim ci wax. lim waxoon ne naa ko wax. li ci des nag. li ci des nag. su wéetee ak yow. la dana la ko leralal bu baax a baax. ci yene ji mu am ci yow. ak cofeel gi mu am ci yow. ak jàpp gi mu am ci yow. wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñëpp a ma jàmmax kéro mu daa daw moo tax. sun saxaar gi na rëg rëg. boo soxla ñu jox paasam. bo di jéem na ding dang. ba ci njaay fëggatina joolooli. génne leen paase. waaju ba gërëm gaal gaa ngi def la paasam bàcc njaay tëggati na jooloon leen paas waaju ba gërëm gaal gaa ngi def la bu sa bi soobee yàlla maa ngi kaanam atraaq bu soxlaa dem sañ a be kaanam yaa ngi teem mboolem dong yey bërët bërëti mu ndigal ji bee raw gaynde ti nari nari soggam gaawaral